bokk tedd yi ñuy topp noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara yi dal ci niveau bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñ borom mu yàgg fi loolu tànni ko bu wér. noonu la ñuy ndokkeele wala mu njabootu Serigne Touba gi waaye ndokkeel taalibe Serigne Touba yi ndokkeel ñi nga xam ne ñoom la ñu liggéey bu tedd bi di daayiratu muqaddamatul xidma bi nga xam ne moo leen moo yor liggéeyu ji ak association la Mouridiyya nga xam ne ñoom itam. ay taalibe la ñu daje di ay bindikat tënku ci genn kuréel ngir bëgg yaatal njàngaleem sëriñ bi ñu ànd kook daayira bu mag bi Darawaatu Rayaahiin ñu def exposition bu mag boo xam ne dañ cee jublu maanaam gaaral téere yi nga xam ne moom lañ bind ci yoonu murit ngir ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw di visiter si ñu mën a ñëw jël ay référence ngir jënd téere yooyu ngir mën di ko wetliko di ci def seen gëstu jotaay bi nga xam ne moom lañu ñu amal nag mi ngi bokk ci programme exposition bi te muy jotaay boo xam ne dañ cee war a gaaral benn téere téere boo xam ne ngi bokk ci téere Rawdu Rayaahiin muy shubhatun wa axtaun xawla al muridiyati wa muassisiha téere boobu nag ñu war ci ànd ak sëriñ Abdul Qadir Bousso alhaji Seex mu bokk ci ñi nga xam ne bokk na ci ñi doon liggéey téere bi ñu ko doon dajale ak ñi ko doon taxawu mu waruñoo defal benn ard ci téere bi incha allah xam naa dañ koy jox rek mu nuyoo bu ko defee ñu daal dellu si jataay bi sëñ Abdou Khadre bismillah bismillahi rahmani rahim <clears throat> alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin ilhaadi al amin mm-hmm. wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa man tabiahum bi ihsaani ila yawmi ddin mm-hmm. jërëjëf sëriñ Seexuna ñu ngi lay delloo nuyoo mm-hmm. di nuyu képp ku ñuy teewlu ak fu mën di nekk di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam. waaye di sof suñuy kàddu ci say kàddu rek. Mm-hmm. di ndokkeel ak di ziyaare bu baax a baax mbooleem xeetul islaam yëpp. Mm-hmm. wala sax mbooleem kuy doomu aadama. Mm-hmm. waaye ziyaar bi ak ndokkeel yi. ak uh, cant gi. ñu ci beral ak di ci jiital. sunu kilifa. suñu sëriñ. Cheikh Mamadou Muntaqa. al xalifatul aam li tariqatil muriidiyya ak képp ku koy jàppale ci liggéey bi. di siyaare mbokki daayirat muxaddamatul xidma daayirat rawdu rayaaxiin ak bindikati murid yi comme ni nga ko waxee di leen ndokkeel bu baax a baax di leen tatagal eh, ak di leen safoo ci liggéey bi nga xam ne ànd nañ ko di ko def te lépp rafet ci biir exposition bi comme noonu nga ko junje di fas yéene gaaral téere bi wu am solo lool boo xam ne rawdu rayaaxiin mën nañ ne ñaari at jëm ñetti ñu ngi ci liggéey ba benn bi jot a génn tere bi tudd ay njuumte ak i lënt yoo xam ne wax nañ ko ci murit gi ak ki ko sos muy sëñ Bamba radiallahu anhu ay bindkat defoon ko yàlla dogal nag jamono di dox ba waarawdu rayaaxiin gis ne war nañ ci am taxawaay taxawaay ba nag weesuwul gaaral njuumte yooyu ba noppi it waxtaane ko xool lu ca mata joyanti ñu joyanti ko mm. lu ca wérut ñu joxañ ne wérut lu ca am njuumte wala lu ca jóonu mm-hmm. ñu ne lii njuumte am na ci mm-hmm. wala boog am na lu joonu lu ca am mm-hmm. yàlla dogal na ne daaw la euh, xaaj bi njëkk bi génn muy deux mille vingt-deux mille quatre cent quarante-quatre ren ji incha allah ñaareelu xaaj bi génn nii na waaye nag ma ngi ca moolukaay ba waaye génn gut maanaam moolu guñ ko ba mën a tosaaroo kon incha allah dañuy daal di jublu ci jotaay bi rek fas yéene gaaral téere bi ci ñi ko suñu seex naa junje bisimilah ñu ñaan suñu borom may ñu digg ak topp amiin yaa rabbil alamin jërëjëf euh, sëñ Abdul Xaadir ci nuyoo ba am solo boobu ñi ngi ñaan suñ borom ñaan ñu ngi ko lëkkaleel yëpp suñu borom nangu ko day mel ni kon ni nga ko waxee ñu ngi jublu ci téere bi nga xam ne mooy shubuhatun wa axtaun xawla al muridiyati wa muassisiha hmm. di téere boo xam ne mën nañ ne raw du yàgg na génn ay téere waaye téere bi bu ko ci ëpp solo amul dafa tax fekk borom xam-xam yi jiitu woon am ci ñoo xam ne dañoo bind def ay njuumte yu rëy rëy rëy ci yoon wi. Mm-hmm. waaye def ko ci sëriñ bi. Mm-hmm. te loolu ñu bind ko mool ko mu tasaaroo. Mm-hmm. léegi jiil yi nga xam ne ñoo ñëw ak jial yi ñoo ci suñ kanam eh, war ñu fekk fi téere yooyu bu fekkee jàng nañ ko te gisuñ lu ko lu ko weddi. dañuy saxal loolu ci sëriñ bi tamay jumte yu rëy yoo xam ne euh, liggéey bu am solo la ci borom xam-xam yi def ñoom sëriñ Abdul Xaadir ñi taxaw ngir nag weddi tuuma yooyu waaye leeral ak ay dalil ay preuve yu leer naññ ci ne li ñu wax amul teg li nga xam ne moom moo am ci wet gi ba mu leer nañu kon suñ bi dañ daal di ñëw rek directement. ci dugg ci jëmi téere bi. subahatun wa axtaawun xawla almuridiyati wa muassisiha nga tàmbalee ci tur wi. bu ko defee ne duggal ñu ci ardu téere bi euh, mubasharatan. jërëjëf sëñ Cheikhouna comme tur wi ni ma ko junjoon léegi. Euh, bañ koy liggéey sax taxawal nañ ci lu yàgg yàgg. ndax mm-hmm. xam nga. yoonu murid tasawuf la te tasawuf ay teggin la. Mm-hmm. te nit. léeg-léeg mu tooñ la mm-hmm. baa mu joxañ la mm-hmm. teg la tuuma joo xam ne mm-hmm. du bokk ak la am waaye teewul nag boo koy tontu wala nga jëflanteeg moom waroo génn say principe principe yi la ci ëpp solo mooy ay teggin loolu feeñ na ci euh, su téere bi wala boog titre bi mooy onwaan bi ndax subuhaat wa axta lañu wax gis nga dañ ko tànkiir lañ ko nakiraal am na daal ay njuumte ak i lënt lënt yoo xam ne teg nañ ko ci murit gi ak ki ko sos mhm. te demeewul noonu mhm. njuumte yooyu nag bu ci ne danañ ko gaaral mhm. danañ ko discuter danañ ko waxtaane waaw gisoo gisoo ci benn baat bu ñagas ci unwaan bi boo ko seetloo bu baax a baax a baax euh, te boo amoon ay baat yu ñagas sax taxut taxut taxut mu garaaw ndax weddi tuuma moom noo ko mën a weddee te muy lu wér rek garaawut ñi jàng seen xam-xam xóot ci wàllu aqida ak hmm. ci wàllu falsafa hmm. wala ci wàllu tasawuf danañ gis ne borom xam-xam yu mag yi sax hmm. daanañ weddi di weddee ni ay tuuma yoo xam ne léeg-léeg anaawil yañ koy wutal titre yi ñu wutal téere ba boo ko gisee directement rek da nga xam ne kii xëy na day attaqué wala boog day tontu tontu boo xam ne da nga ci yéegee ak ñagas wala yu mel na waaye ñoom yooyu yëpp dañ ko doon moytu moo tax ñu tuddeewoon ko noonu ñu comme ni nga ko junjee nag li waral téere bi weesuwul rek ne mhm. euh, fi ne nii dañoo nekk ci jamonoy xam-xam mhm. xam-xam toll na ci foo xam ne mhm. euh, ñëpp a ngi koy wut ñëpp a ngi sàkk lu wér yoonu murid it ab dayoom dem na ci ne fii ba ba àgg ci foo xam ne ñëpp ay bind fi ne ñëpp ay ngénte yooyu nag ak mënti lant yooyu bu ñu bàyyee mooy rek mhm. ku ñëw da ngay jàpp ne ñii la demee mhm. te mën na tashwi suma ak mhm. tariqal muridiyya mën naa ñaawal euh, déggin wala boog euh, mën naa ñaawal image yoon wi ma ngoog mën naa ñaawal image yoon wi loolu moo warloon te gis rawdu rayaaxiin day dayre boo xam ne lépp luy wane sëñ bi ak yoon wi jaare ko ci ay anam yu wér mm-hmm. moom moo ci war a jiitu te mm-hmm. nam jiitoo mooy bind ci waxtaane ko mm-hmm. loolu moo tax ñu jàpp ne kon war nañoo bind bu ñuy bind nag dañu jubloo leeral lii dëgg rek xaaxul xaq daanaka moo taxoon ñu jóg te it yàlla def na ci tawféex bu wér a wér euh, muy ay njuumte nag ak i lënt-lënt yu baree bari yoo xam ne ay borom xam-xam yu mag. Mhm. bokkoon na ci ñi bokkoon nañ ci ñi ñi doon liggéey téere bi. Mhm. sëñ Abdou Lahad Lo mi nga xam ne moo jiite eh, université bi. Mhm. moo nekk ca bopp ba moom moo ko doon tansiq. moo doon moo doon coordonné liggéey bi. jàmbaare ci lool bokk na ci ñi doon liggéey sëñ Cheikh Naan ak Abdoul Wadoud. inspecteur El Hadj Fallou Seck. docteur Sam Boussa Abdourahmane docteur Cheikh Naan Khadim Mbacké Mourtada. docteur El Hadj oustaz alhaji Fadil Ñang Kunta di imam oustaz alhaji Fadil Bousso Hassan di directeur wu excellence école Serigne Mbacké Bousso centre Serigne Mbacké Bousso docteur Mouhamad Bamba Dramé oustaz Moustapha inspecteur Mouhamad Ndiaye ak euh, Abdoul Qadir Bousso alhaji Cheikh ak ku ñu wax euh, oustaz Mouhamad Lamine Lo ñi ñëpp bokkoon nañ ci ñi taxawoon liggéey bi mm. liggéey bi ni mu demee woon nag weesuutoon waxtaan jéem a seppi fi ñu jàpp ne fi la ay lënt-lënt am mhm. waaw ak ci ñi ñi ko jeqi mhm. ñu ko indi mhm. ñi indi ñoom te yooyu ña ca bind ak fañ ko binde loolu mooy jéego bi ñekk bañ ko dajalee ba noppi daane nañ xool niñ ko wutalee ay ay bunt bunt ci téere bañ noppee daan ne nañ xool niñ ko toftalee bañ noppee daan ne nañ xool niñ ci tontoo daanaka daal ñeenti étape yooyu ci la jaar tontin yu weesuwul mooy dañ ko defoon ay pàcc mhm. kenn ku ci ne dem tontu mhm. boo tontoo ba indi li nga indi dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy mën a xasawaat mhm. dañ koy dañ maanaam liggéeyu mbooloo la lépp lépp liggéeyu mbooloo la ci tàmbali bi kenn moo dem tontu waaye bu ñëwee day gaaral mbooloo mi lim tontu mbooloo mi jàng ko aw yoon gendiku ñu ci gis remarque yuñ ci gis mulaxasaat yuñ ci gis daat ko koy jox mu mm-hmm. yóbbaale ko bu ñëwaatee ñu jàngaat ko xoolaat mm-hmm. waaw noonu la noonu loolu noonu la liggéey bi yëpp doxee mm-hmm. muy yi ñu si xanaa tontu muy yi si abdoulaye loo tontu muy tontu muy yi keneen ak tontu am doon xeej seen ku ci man di ñëw dañ koy teg ci taabal ji léeg ay dab dabaataan mën na cee am. Mm-hmm. léeg sax ñu ñu gis ne li nga tontu baax na waaye ni nga ko tontoo. mën naa gën a. Mm-hmm. mën naa mën naa mën naa gën a mucc ayib. Mm-hmm. mën naa gën a baax mën naa gën a nangam. bi ñu ba def loolu lépp ba noppi daal di def muraajaa jamaa ya muy lu lu boolewaat lépp nag. tiimaat ko liiraat ko jàngataat ko. xool ba xam euh, àgg na ca na mu gën a mate ci lu dëppook suñu objectif mm-hmm. wala boog mënees na cee wàññi wala boog mënees naa dolli mm-hmm. noonu la noonu la noonu la téere bi noonu la téere bi tëdde mm-hmm. booy xool it bunt yi ni ko tëralee maanaam gible wuñu woon ay nit mhm. waaw mhm. daan ne diw ak diw diw la ñu jagleel bunt bi diw la ñu jagleel bunt bi diw la ñu jagleel bi déedéet mhm. waaye ay mawduwaat lañ gible woon maanaam dañu xool tomb tomb yu nuroo rek te am ay tuuma yu ca daje ñu boole leen ci benn bunt masalan moo tax léeg-léeg dem ci benn bunt gis fa koo xam ne ah. moo fa ëpp moo fa ëpp lu ñu ko fay tudd ndax moo ah. ëpp lu mu lu mu bind ci wàll googu gis bunt boo xam ne mhm. dañ fay tudd kee bam yàgg ñu tudd fa kee yàgg ñu tudd fa kee ndax ñoom ñëpp dañ faa daje mhm. rawat nag Paul Marty mi xam ne dañoo jàpp ne ñu baree baree bari ci gone yi bind mhm. ci ñoom lañ toxale Paul Marty ak euh, Oustaz Rawhan Mbaye loolu da gis ne téere bi daanaka yu ci baree bari da ngay seetlu sax day baamtu waaw ndax benn njuumte la wala subha la lënt lënt la boo xam ne Paul moo fi waxoon yàgg bàyyi ko fi te demewut noonu Oustaz Rawhan mën naa ñëw daa koy daa koy gën a gën a feddali wala mu confirmer ko wala mu sax mu yokk ca dara mm-hmm. bu ñëwee gone yi ci des buñ ñëwee mm-hmm. loola la ñuy copier te dañ ko te dañ ko vérifier mm-hmm. am na ci yoo xam ne du pôle waaye ñeneen la waaw loolu dana feeñ ci dana feeñ ci ki muy loo xam ne daanaka dangay gis ne rek ñàkk a taxqiq ñàkk a daf ciy feeñ waaw maanaam ñàkk vérifier ñàkk a ñàkk ñàkk gëstu bu xóot. Mm-hmm. ñàkk dellu ci source yi nga xam ne moom la murit gi am. Mm-hmm. nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ñoo ñoo fekke woon xew-xew yi. Mm-hmm. ñoo ca bind ñoo ko dundoon. loolu la ko ciy gis bu baax lu baree baree bari. dafay mel ne daal léeg da ngay gis ay subuhaat. ay lënt-lënt ak njuumte yoo xam ne. daf lay leer ni ki ko bind. da koo bind ci xayaal. waaw maanaam dafa mel ko dafa ko dafa bind ko. wala sax nga jàpp ne dafa gis benn comportement nit kuy dox di askan la boppam ci murit gi. mu jël ko généraliser. alal bari na ci lool. Mm-hmm. wala sax nga gis koo xam ne li mu bind dangay xam ne da ko dégg rek. da ko dégg ci mbedd mi. Mm-hmm. waaye amul benn relation ak ak ak ak uh, murit gi dëgg-dëgg ak i principe mm-hmm. ndax loolu daanaka bu ñu ko doon def dara bu baax. al sax. boo xoolee comportement ñenn ñi tax nga at nga nga attaqué l'islam mhm. da ngay jàpp ne l'islam du dara mhm. waaw l'islam du diine du diine mhm. di diin du du diine ngëm yàlla du diine bennoo nangam ak nangam murid gi kon mënut a génn ci wàllu googu waaw ci gàttal daal mën nañu wax ne euh, lii moo ëmb téere bi mu nekk téere boo xam ne ëmb na ay bunt yu bare bare comme dañuy gaaral du ñàkk mën naa ko wax bu ñu noppee nga tànn ci yenn ñu ñu seet ko bunt bi ci njëkk Euh, jagleel nañ buntu. lënt lënt ak njuumte yi nga xam ne moo aju ci. Mm-hmm. Euh, sëñ bi fi mu feeñee jamono. Mm-hmm. ba ni mu mm-hmm. waaw maanaam njuumte yi ca am yañ ca waxta demewul noonu. ñaareel bi jagleel nañ bunt njuumte ak lënt lënt yi nga xam ne moo feeñ ci diggante relation. sëñ Maam Mor Anta ak Lat Joor. ak ban taxawaay la ci sëñ bi amoon ban position la ci amoon. ndax foofu njuumte yi daf daf ciy bari lool léeg-léeg. am na ci ñoo xam ne. léeg-léeg dañuy àgg ci ne bëgg a bëgg a wan nit ñi ne maanaam Maam Mor Anta di waajuru sëñ tubaab nekkoon borom xam-xam bu mag. Mhm. nekkoon ab xaar yi mhm. dañuy bëgg a wane ne lim nekkoon neexutoon sëñ bi. Mhm. waaw ci di ko di ko di ko di ko wane. ci ay bindin. ak ci waxin yu yu yu wute. waaye yooyu yëpp euh, position bi sëñ bi amoon dëgg-dëgg. muy position boo xam ne daanaka moo kon ak moom ba. ni mu ni mu nañ ko ci teer bi ñetteelu bunt bi ñu jagleel. Euh, njuumte mm. ak lënt-lënt yi nga xam ne moo amoon ci diggante sëñ bi ak boor yi mm. boor yi fi nekkoon mm. ñeenteel bi njuumte ak lënt-lënt yi nga xam ne moo aju ci ndax sëñ bi jëloon na ay awraat mm-hmm. ay werdu lu mel ne werdu xaadir moom nga xam ne leer na mm-hmm. ak werdu chazali ak mm-hmm. werdu tijaan ak jël gi mu ko jëloon gan façon jël la mm-hmm. ndax ak su tabarruk la woon mm-hmm. maanaam benn étape la woon boo xam ne daf caa àggoon mm-hmm. doon ci barkeel rek wala daf koo jëloon jëlin woo xam ne dañ koy mën a àttee comme tey ni mu jëlee wirdul maaxuus wala yu mel noonu ak ci ban étape la ko jëlee yooyu lënt lënt yi fa am ak njuumte yi ci am leeral nañ ko moom juróomeel bi leeral nañ lënt lënt yi nga xam ne moo am ci diggante sëñ bi ak kilifay xaajar yi mu fi nekkaloon waaw rawatina Cheikh Sidiya ak ku mel juróom-benneel bi ñu leeral lënt-lënt ak njuumte yi nga xam ne moo am ci diggante ci ci ci ci dëgg dëgg yi wooteeb sëñ bi. sëñ bi lu mu indi li mu indi lu mu doon. Mm-hmm. waaw loolu it am bari na ay njuumte yu ci am lool. Mm-hmm. ci loo xam ne da ngay daf lay leer ne rek ñàkk mm-hmm. ñàkk a am na ci. ak ñàkk a système mu mouridisme ni muy doxee. ak li ko ëmb ak li ko lal ak ay principe am yan la. juróom-ñaareel bi te mooy njëkk bi ci mujj. leeral nañ lënt lënt ak yi nga xam ne ak njuumte yi nga xam ne moo aju ci sëñ bi ban taxawaay la amoon ci jàng ak jàngale mm-hmm. loolu léegi euh, da gis rek koo xam ne mm-hmm. euh, day xëy xëy ni dafa sóobu mm-hmm. wala gis euh, koo xam ne day askane la boppam ci murid gi te yittewul jàng tax nga bëgg caa jaar wala ne mu wala boog sëñ tubaar radiyallaahu anhu joxutoon dayo benn joxutoon benn dayo jàng ak jàngale loolu feeñ na ci njuumte yi mm-hmm. bu mujj bi nag ñu jagleel ko njuumte ak lënt-lënt yi nga xam ne moo am ci mm-hmm. taxawaayu sëñ bi ak i ak i taalibeem mm-hmm. yan taxawaay lañ amoon ci jaamu yàlla waaw moo xam muy julli moo xam muy woor moo xam muy natt asaka ak yeneen ak yeneen kon daal ci gàttal bu ma tënkee suñ Cheikh naa mën naa ma wax ne loolu mooy dëgg-dëggi téere bi lii it mooy bunt yi ci am lii moo tax ñu bind ko nii lañ ko bindee macha allah jërëjëf sëñ Abdou Khadir Bousso ci ardu bu am solo bi nga xam ne defal nañu ko ci téere bi ci tàmbali xamal nañu maanaam sababu li tax ñu bind téere bi ci njëkk xamal nañu itam ñu ngi borom xam-xam nga xam ne ñoom ñoo composé woon commission bi nga xam ne ñoom lañ joxoon wàllu dajale yooyu nga xam ne mooy njuumte yi ak wàllum tontu mi. Hmm. ak itam ni ñu doon liggéey ci seen biir nga xam ne ku tontu boo ñëwee dañuy dañuy teg tontu li ñu xoolandoo ko bu ko defee bu amee ay njuumte wala bu amee lu war a defaraat ñu demal defaraat ko bu amee ni nga ko tontoo itam bu xawee ñagas wala nangam wala nangam ñu ne demal ñu defaraat ko ba mu mel na mu war a mel ba nga xam ne bi ñu ko defee ci téere bi ku mën na koo jàng ci yëg benn euh, li ñu lay ñuy tooñ tooñ tooñ tooñ fayiwuñu fayigu woon ne suñ principe yi ñu nekk muy ay teggin génn nañ ko benn muy lu am solo loo xam ne feeñ na ci téere bi euh, maanaam ñaareelu tomb bi itam andil nañu ni nga xam ne noonu la ñu taftalee bunt yi bunt bu nekk ci dunduk sëriñ bi njuumte ca am ñu ak borom xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo ko bind xanaa li mu andi wut ak mooy téere yi nga xam ne ca ñu sukkandikoo ci biir eh, ci li nga xam ne moom mooy xam naa ñëw ci ñaareelu ñaareelu laaj bi. léegi nag xam naa boo ñu indilee téere yi nga xam ne moo gën a siiw ci nga xam ne moom ci ngeen dellu jëlee ca njuum te yooyee. léegi nag nga indil ñu ay namaz ci biir téere bi. Mm-hmm. ci eh, njuumte yoo xam ne masalan eh, mën nañu jël diggante sëriñ bi. taxawaay bi mu amoon ci Mamour Anda Sali relation bi mu amoon ak buur yi ndax loolu day mel ni wax ji bari na ci xeetu bari boo xam ne lu nekk ñi ko ci wax. Mm-hmm. Euh, ñi nga xam ne ñooy diwaankat yi am na luñ ci wax. ñi nga xam ne ñooy yenn conférence yi am na luñ ci wax. Mm-hmm. am na sax ñeneen ñoo xam ne ñu bind bind boo xam ne lépp njumte lay doon. Mm-hmm. kon loolu nga ñëwal ñu ci subahaat bi nga xam ne moo aju ci relation bi nga xam ne Mamour Anda Sali amoon na ko ak Lat Joor ak taxawaayu sëñ bi bi ci amoon ci ci ci loolu. ok jërëjëf Serigne Cheikhouna xam naa bu dee laaj bu njëkk bi nga njëkk a laaj mooy téere yi hmm. uh, wala boog ñi ñu tontu hmm. Paul Marty daanaka moo jiitu hmm. moom bind na ab téere boo xam ne ay njuumte yu bare bare am na ci daanaka sax yoonu murid dëgg-dëgg taxu ko woon jóg waaye feeñ na ca lool ne moom yitte woon na ko ku ñu wax Oustaz Rouhane Mbaye moom it am na ci ci teesam boobu uh, ku ñu wax Mouhamad Muxtaar Dieye mhm. ak Mouhamad Bouchra Dieye mhm. ñooñu it amoon nañ ci mhm. daanaka ñii ñoo ci ñoo ci ñoo ci ñoo ci ñoo ci gën a ñoo ci gën a ëpp solo da ngeen ci gis yeneen waaye ñoo ñu wuñ ci waaye ñii daal ñoo ci ñoo ci ñoo ci ëpp solo euh, bu dee ñaareelu laaj bi muy njuumte ak euh, euh, lënt lënt yi nga xam ne moo am ci diggante relation Mamour Anta Sali ak Lat Dior ni nga ko waxee dëgg la kenn ku ci ne yaa nga am loo cee wax waa lañu jàpp ni moo ci dëgg mooy li ñuy waaj wax. Mhm. bu ñu demee ci euh, docteur Roxane Mbaye ci teesam boobu. Mhm. muy l'islam au Sénégal. Mhm. danañu fekk ci xëtu ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar. jàpp ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett. mu naan. bu ñuy seetlu comportement bi Ahmad bàmba amoon moom dafa jàppoon ne rek euh, njiit yi fi nekkoon njiiti aada yi fi nekkoon bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu amee relation ak yenn personnalité yi nga xam ne ay jullit lañ xamal ne seen seen seen intérêt bopp rek lañ ci bëgg a dabb mm. nee na bi Sëñ Tuubaa gisee loolu mm. bi mu seetloo loolu mm. ci la sàkku ci waajuram te mooy membre Anta Sali hmm. mu sori njiiti àdduna yooyu hmm. te mooy yooyu hmm. xam nga lii tuuma la <laughs> waaw daal sax ci sàkku ci moom loolu waaye daf caa dogu ne ko da ngay bàyyi wàllu justice gi nga nekk waaw ginnaaw ab nga woon ab xaadi nga léegi koy bàyyi bul tegati sa tànk mukk ca fala jor di nekk waaw euh, moom dafa amoon gis-gis bu mu gis hmm. moo jàpp na ne kon dafay mel ni fii booy seetlu hmm. ci njëlbeen nga danga seetlu ne dafa bëgg a wax ni kon Maam Moor bu fay reem rek hmm. mooy intérêt boppam la fa moo moo moo ko fa yóbbu waaye du intérêt diine du intérêt xeet wi wax ak sax euh, roxaan ci lii ne lii Ahmadou ma wax baayam de indil na baayam jafe-jafe bu mettee métti <laughs> waaw waaw lii décision bii mm-hmm. doom ji jël. indi mm-hmm. na ko jafe-jafe bu méttee métti. Mm-hmm. ndax mi ngi xalaat naan bu moo ko defut lan moo ma ci mën a fekk. te kii nga xam ne fi ne mi ngi tàmbalee dëgër. <laughs> muraahiq kii nga xam ne mi ngi tàmbalee dëgër. ah bu fekkente ne xel maa ngi màcc it. expérience am bëreegut. xam nga yëpp ay tuuma la. waaw daan ne ndax moom dafa xamut. wala boog bëggut a xam ne. décision bii mu bëgg a jël. Mm-hmm. mën na maa indil ay jafe-jafe yu bare bare. Mm-hmm. waaw jafe-jafe yi wàllu politique rawatina wàllu diine. Mm-hmm. mën na ma koo indil ci euh, ëllëgu. ëllëgu lislaam ci dëkk bii ma nekk. kon day mel ni kon fii. Sëñ Tuubaa daal indi na benn décision boo xam ne. <laughs> indil na jafe-jafe bu mag a mag ak ak ñàkk ñàkk dal gu méttee métti Maam Mor Anta Sali. waaw liñ ci tontu foofu dañuy wax ne. Sëñ Tuubaa de. liñ xam ci moom mooy ne bëggoon naa am bëggoon na waajuram am euh, bëggoon na waajuram am taxawaay ci Lat Joor bu bokkut taxawaay bi mu amoon ci moom mooy jaay gi mm-hmm. loolu moom ku ne xam ne Sëriñ Tuubaa diggante nag mm-hmm. bóor yi mm-hmm. waaye nag musu koo ja musuta jàmmarloog moom ci mm-hmm. di ko ci wax dara mm-hmm. rawatina di ko attaqué comme mm-hmm. nii nga xam ne noonu la ko ruuxaan waxee déeg am rawatina nag mu dem ba koy xupp naan boo ko bàyyi wut <laughs> uh, mën ngaa jaxase famille beeg ak daggoo man na ci am yu mel noonu déedéet loolu moom ku xam teggi ni sëriñ bi xam dayoo bi mu joxoon waajuram da nga xam ne lii amut xam nga koo xam ne booy jànge mbiram dangay ngay seet ne ba ci sax uh, sëñ Mamadou Lamine Diop Dagana. Hmm. ci Nubzal Mubaraka. Hmm. dañ ci seetlu ne leeral na ci relation bu bare bëri boo xam ne amoon na ci diggante sëriñ bi. ak waajuram. Hmm. waaye lépp da ngay gis ne ay teggi na ko. ay teggi na ko laal. sëñ bi Daoud bay xamuñ ko ci woon mm-hmm. waaye bi fi waajuram nekkee mm-hmm. daana ci jéemantu lu mu am jox ko addee waajuram mm-hmm. waaw daanaka bi fi maam Mor nekkee amutoon lenn lu muy amal boppam lu mu am ci waajuram la ko delloo kon kooku mere kook jaat ni ko moom kenn waxut kenn waxut ay waxam waaw kers gu bare bare bare la amoon ci diggante ak waajuram kon lii mu wax da ngay yëg ne ay waxi waxi ay waxi noonu la rek waaye du wax ju du wax joo xam ne kenn mën na ko dëggal Cheikhul Bachir mi ngi nett li loolu ci ni sëñ bi daan jëflanteeg waajuram mm-hmm. lii mooy leeral mm-hmm. wax ne ne yulaatifu cheikhu mm-hmm. yulaatifu cheikh al walid fii an yaxruja min al xada daana naxanteeg moom lañ ko bëgg a mën a waxee ci suñu suñu suñu làkku jamono daana naxanteeg moom bëgg mu bàyyi àtte boobu mu daan def daane léeg-léeg sax daana ko ci bind mbind moo xam ne ngir ay tegginam hmm. akub yaram daw ko may mu koy mën a jox jox <laughs> waajuram waaye da daan sànni ci barab rek hmm. bu maam Mor dox ba yam ci hmm. <laughs> loolu daf lay wan ne kon li lii lii lii li li rooxaan wax mu fu mu ko jële waaye en principe sax boo ko déggee rek da xam ne dëppoot ak dëppoot ak murit te lii mu daan def bëggoon waajuram génn ci xadaa bàyyi xadaa loolu gis-gisam la woon. Hmm. waaw gis ijtihaad la woon rek. Hmm. loolu moo tax Cheikh Mouhamed Bachir di di wax naan. wa rubbama yakunu cheikhul walid ala xaq. Hmm. li taayun al qiyaam bi tilka al wadifa charia ndax na ko. am xelam mate woon na ko. ku taxe woon ci wàllu googu mënutoon a ñàkk. mën naa am maanaam maam Mor li mu nekkoon. loolu boo ko xoolee ci wàllu googu dangay xam ne am na dëgg. waaw. islam yajid man huwa alyaqu biha minhu mhm. ndax ku ko gënoon a yay ci mu taxaw a taxawaay boobu amutoon mhm. ndax booba diina ji ñu ngi ko daan fooyee ñu ngi ko daan maslaaye mhm. kon taxaw ci saytu wàllu googu ñang ñang ñang diina ji ba ku bëgg a am àtte bu leer ci sa wàllu lislaam man koo am loolu ku ca taxaw te fekk nga man ko am kafaa bi euh, day nekk taxawaay bu war li annahu yajibu ala al asaxi lahu alqiyam biha kon loolu leer na ndax ci lislaam dañ naan ku ko man te man koo taxawee anam googu boo ko defut xaakim la caa war a forcé nga taxaw ci ndax maslaxatu euh, al maslaxatul amma ma caa am waaye nag Sëriñ Tuubaa ci beneen anam la doon xoole moom kon boo xoolee fii Sëriñ Basiir leeral na masala mooy Maam Mor Anta Sali dafa mel ne kaana yanzuru bi ayni sharia mm-hmm. waaw bu dee sëñ bi nag kaana yanzuru bi ayni alxaqiqa mm-hmm. waaw mm-hmm. moom jege buur yaag la ca mën a juddoog ci wàllu goog la doon xool ba tax muy xool nu mu ñu mën a laabiree waa juróom ba mu génn ci wàllu googu waaye nag lii yeneen la leen amu ci ci gàttal daal subha boobu la leen amu ci ñaareelu subha bi te naa bu ma ko waxee mën nañ caayam ndax ndax la leen lu ñëw rek day confirmer yi ci des waaw mooy nee na Maam Mor Anta Sali daf doon wane ne hmm. bàyyi na mbéccim xadaa hmm. ak diisoog buur yi hmm. waaye léegi daal li ma fi nekkee mooy lu ñu mën a bind ci ay wàllu leetar yu mel noonu rek maa ko def léegi nag xaad ma jaxate kala moo ko moo ko ca wutu <laughs> wax jiit xaw naa xorom <laughs> mi ngi ko wax moom it mu ngi ko wax ci teesam boobu nee bokkoon na ci àttekat yi gënoon a siiw mhm. nga xam ne ñoo daan àtte ci fii nga xam ne fi la boor yi nekkoon mhm. mën nañ caa tudd Mamour Anta Sali mhm. waajuru Ahmadou Bamba daan ne moom mbécce mi mi ngi ko defoon mi ngi ko tàmbale woon ca Kajoor ci ron kilifteefu Lat Joor waaye nag ginnaaw bi dafa nekkoon daanaka ab secrétaire rek secrétaire boo xam ne moo daan bind correspondance yi nga xam ne moo daan am ci diggante boor yi ka ko fa wutu woon nekk beneen àttekat nekk beneen boroom xam-xamu adab bu ñu wax majaxate kala hmm. waaw daan ne li tax li waral lii nag mooy tuuma ji dëgg-dëgg hmm. maam xaadima jaxate kala ndax wutu na ko wala wutu ko danañ ci ñëw hmm. waaye nee na li tax xaadima jaxate kala wuutu ko mooy dafa fekkoon Maam Mor Anta Sali doomam jeedi Ahmad Bamba dafa sàkkoon ci moom mu bàyyi mu bàyyi àtte waaw rawatina àtte yi nga xam ne ak maslaa dong la mm-hmm. nga xam ne daanaka tegu ko ci kaw dëgg al aqdiya al mutasahila wal mawrida <laughs> waaw yooyu nga xam day am mm-hmm. day am mm-hmm. ci yenn àttekat yi loolu daal moom neexu ko woon te tootaar xëy na mammoor mën naa dem ba lu mel noonu am ci ay àtteem moo tax mu sàkk woon ci moom mu bàyyi ko biñ koy doon dañoo wax ne xaadi Mor Anta Sali nekk ab secrétaire moom xamagu xamaguñ ko ci taarix. Mm-hmm. maanaam gisaguñ ku bind ci Maam Mor Anta Sali ku bind loolu. Mm-hmm. moom liñ xam ci moom mooy ab àttekat la woon ab mm-hmm. juge la woon. conseil spécial la woon pour la Joor. Euh, dëkkut ak moom it ci benn dëkk. waaye benn fenn maanaam amut fenn fu ñu daan fréquenté. foo xam ne ñoo bokk dëkk waaye dañ li ñu wax rek mooy. fu Lat Joor mosaan nekk mm-hmm. day ànd ak Maamor Anta Sali mu dëkk ca pegg ba mm-hmm. moo ay mbokkam mm-hmm. ak ñim naan jàngal nga xam ne ci biir lool day mën a jàngale bu jàngale jotee waaye bu ko Lat soxlaa ci àtte wala ci diisoo ci wàllu diine mu mën a diisoo ak moom loolu am na ay textes yoo xam ne euh, ku mel ne Minanul Baaxil Xadiim indi na ko amul kenn ku wax ne it ci bindkat yi nga xam ne mën nañoo sukkandiku seen bind amul kenn ku ci mës a wax ne Maam Mor démissionné na ci mbécceem moom mu doon def. Hmm. ci mission boobu mu amee woon te mooy àtte. Hmm. waaw loolu moom amut. ne démissionné nag ngeen ne sëñ Tuubaa moo ko saako ci moom moo ko laaj biir mu démissionné mu démissionné loolu amut. Hmm. loolu buñ nee démissionné wul rek. day tontuwaale leneen. mooy jeneen tuuma ji ci teg ni ma ah. xaadu yi ma jaxate kala moo ko wuutu. wuutu loolu amut. waaw loolu amut. ñoom ñaar dañ daan àttinoo ci même benn waxtu. waaw. kon kee xaadi la woon kee xaadi la woon waaye bëgg a wax ne kii xaadi la ba mu yàgg mu démissionné bàyyi kee mu nekk xaadi yi moom mu nekk secrétaire loolu amut wala boog gisuñ ko fen kon ci gàttal ñaar yi leneen lu ñëw rek day confirmer ñaar yooyu di ko gën a dëgëral macha allah waaw macha allah jërëjëf sëñ Abdoul Khadir Bousso ci ñu fàttali leen yéen a ngi ànd ak euh, exposition bi nga xam ne Rawdu Rayaahiin ak euh, ay yëm te mooy association des écrivains de la Mouridiyya ak daayira Moukhaddamatoul ma ñoom ñoo koy def fii jumaa ji bokk ci activités yi nga xam ne ci yi dundal màggal gi ci la bokk. xam naa sëñ bi kon mën nañoo tënk sax ci laaj bi nga xam ne mooy waa ji ñëw te ñu baree baree bari itam di ci am jafe-jafe mooy taxawaayu sëriñ bi ak murid ci attey lislaam yi ndax dafa mel ni bokk na ci tuuma yi gën a rëy yi nga xam ne jëmal nañ ko ci moom mooy dafa mel ni laal attey lislaam yi moom sëñ bi da ko woowee faloon moo ko taalibeem lu mel ni julli ñu koy waxee mel ni koor ba ci lu mel ni aj màkk yooyu yëpp lu ci ne andi nañ ci yoo xam ne dafa jëm ci sëriñ bi ak murid di nga xam ne ñoo aju ci moom jërëjëf sëñ Cheikh naa loolu it moom bari na lool mm-hmm. eh, rawat na ci ku mel ne Rawxaan mm-hmm. moom bari ci lool mm-hmm. waaw eh, du ñàkk xëy na gis ngeen sax euh, émission leeral. waaw leeral waaw. Euh, ak Serigne Cheikhna Mourtada. indi mm. nañ ci ay indi nañ ci ay kii. Mm. moom it mën nañ ca tànn yenn rek. Mm. bokk na ca. lii mooy subhab ñeenteel ñeenteel ci ci ci ci mooy njuumteg. ñeenteelu njuumte ci bunt bi. Euh, ci rawxaan la jóge dafa wax ne. mur yi baree ba dañoo dëng jaartuñ yoon. <laughs> ndax lan. ndax sëriñ bi moo leen wàcceer ñu jàng seen diine waaw moom dafa leen wax ne tarbiya rek doy na mm-hmm. moo tax supa bi ni mu ñëwee dafa wax ne Ahmad Bamba bi mu demee ba mënta ñàkk jeexal ak dundam ca benn mm-hmm. te mooy dëkk booba nga xam ne village booba nga xam ne mm-hmm. fa la murid gi juddoo officiellement loolu rek beneen à <laughs> mille neuf cent douze <laughs> jeexuma ko waaw <laughs> ba nga xamee ne loolu xam ne mënut a ñàkk mm-hmm. def fala fala def ñeenti at nekk ci diggante ay taalibe mm-hmm. waaye daa jékki-jékki seetlu ne ñu baree bari ci taalibe yi mm-hmm. dañoo mujjoon di bàyyi yoon wi mu leen teg waaw daan ne nag fii mu mu dafay posé question daan ne nag bàyyi yoon googu jàdd googu lu ko waral ndax ñàkk too ak ñàkk toogam moo ko waral ndax dem na fi fu ne. dem na fi Gabon dem na fi Mauritanie. Thiène wax ak sa wala boog li ko waral moom moom moo leen wàcceel. waaj moo leen wàcceel jàng seen wartee fi diine. ne mën nañoo considérer yëpp nag nekku fi woon ba na mën nañoo considérer ñaar yëpp <laughs> ndax nee na euh, sëñ bi xalaat bi mu yore woon. ci bëgg a corriger fi fekkoon mën nañoo may. ñu considérer ñaar yëpp. Mhm. ni daal dafa bëggoon wàcceel. Mhm. Eh, ay taalibeem wartee fi diine. Mhm. fii biñ ko tontu dañoo wax ne. liñ njëkk seetlu mooy oustaz Roxaan xanaa xëy na dafa jàpp ne. dafa firee firi firiwu njuumte. la déclaration ba sëñ bi defoon ci Mbàkke Kajoor ndax booba sëñ bi daf caa wane ne léegi nekkatut ab jàngalekatu kase mm-hmm. waaye léegi jàngalekat la di yarkat mm-hmm. waaw loolu moo tax mu waxee ne ku fi ñëwoon ngir jàng kase mm-hmm. na xoolaat boppam na dem fa jàng kase am waaw ku bëgg liñ bëgg nag te liñ man man araada maa na na dox ci li ñuy dox waaw euh, borom irwa mi ngi nettali ne suñu Mouhamadou Lamine Diop Dagana mooy wax ni sama lenn ci samay sëriñ nettali nañ ma te kii ma nettali ndëgër laay la ku wóor la ku xam li muy wax la nee sëriñ bi moo ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko waxanteeg ne ko rabbi bi dars say taalibe yar leen yaruk himma si gën a kawee seen yitte waaye bu leen yar ci jàng donc mm-hmm. kon xam lu say wartee fi diine hmm. maanaam lenn la ci lenn la ci yarinu sëñ bi hmm. maanaam ci la ci la yar bi sax tàmbalee la wax hmm. waaw da ngay xam la sa war sa wartee fu diine noppee nag jàll ñu tarbiya la tarbiya ruux ya waaye jàng googu nga xam ne moom nga war a jàng sa sa sa sa sa sa sa wartee fi diine système bi sëñ bi indi mooy nekkatul rek loo xam ne euh, dañ koy def ci nañ ko baaxoon defee théorie rek waaw rek jàng tëral ay téere ñu waxaan la nga dem rek déedéet. waaye nag mën nañ ko defee ci anam ñu baree baree bare kon sëñ bi bi mu ñëwee dañoo wax li li ñu seetlu mooy dafa gën a yaatal. xeetu jàngiin. waaw gën koo dëppale ak jamono. nga xam ne léegi doo jàng rek yam ci. waaye loo jàng da koy jëfee. te lii beesut. lii la fi yonent bi sama sanam indi woon. boo seetloo saxaaba yi li li ñuy waxee ci alxuraan. benn aaya léeg-léeg mën nañ ci daan yàgg lool. xam nga. araab ni ñu ko xamee. dafa am. ak man a mokkal. waaye kon loolu la. lañ ciy déggee mooy ñoom lañ am lañ daan waxale seen bopp rek daawuñ jéggi benn aay lu may dañuy jëfe la ci am lépp waaw kon sëñ bi loolu la fi indi taalim nazar yi boo xam ne la koy gunge mooy tatbiq amal yi waaw oustaz euh, Rouhane kon dañuy jàpp ne rek dafa juum njuum te xam-xam gu rëy rëy ndax bi mu waxee ne yoonu murit mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi juddu officiellement ci en 1912. Mhm. loolu moom beneen njuumte la. waaw ndax lii moom. Mhm. day wane ne xamut ci murit gi lu bari. yaakaar naa gëstukat bu toll ni moom. Mhm. di borom xam-xam di xame. di kilifa jàpp nañ ni lii mën a noog bañ a fekk. kon loolu moom jëru tontu. jëru tontu ndax leer na. Ah, leer na ci eh, képp koo xam ne. am nga tuuti ci euh, tuuti xam-xam ci murid ji mm-hmm. euh, léeg-léeg mu wax ne mm-hmm. buñ sukkandikoo ci mbindum sëñ bi mm-hmm. dañuy gis ne ab murid mën naa bañ def dara ci diineem <laughs> te mën naa dugg àjjana mën naa kii fii nag moom tont bi mën naa mën naa mën naa mën naa mën naa simple dañ naan ko rek dañ koy delluwaat laaj bi ana ci mbindi sëñ bi fu ci gis loo xam ne day tegtale ne waa moo wàcceel taalibe yi seen diine mm, mm, mm. ak yan taalibe sax ñoo jàpp ne sëñ bi da leen a wàcceel seen warteefi diine ngir sukkandiku ci am mbindam waaw kon lii moom lu mu wax la rek bàyyi fi amul benn firnde euh, wax na yit ci wàllu ponk yeeg yooyu nee na it murid yi ba fi sëñ bi nekkee dañ ko daan fekki Jurbel jàppe ko aj bi mu demee ba yi dañ koy fekki Tuubaa jàppe ko aj lii moom du loo waxaan rek wax. Mm-hmm. gëm ko. Mm-hmm. waaye euh, ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. Mm-hmm. ci ñu mel nañ moom. gëm nañ ko wax nañ ko. am na texte bu gudd boo xam ne. wax nañ ci lu mel noonu. dem bay sëñ bi ajiwut ak nangam ak nangam ak nangam loolu moom kenn wérante ko moom sëñ bi ajiwut. waaw la ko waral it xam nañ ko ndax da ci amoon gànt rek. waaye nag bëgg a wax ne loolu mm, moo ko tànn noonu nag. ak ginnaaw ak njabootam dañ ko cee roy. waaw ak njabootam dañ ko cee roy ak yooyu moom waxi waxi kii la rek. Mm-hmm. njaboot gi gis nañ ni ni niñ ko wuutoo sax ci wàllu googu. waaw. Euh, Cheikh Mouhamed Bachir mi ngi wax naan ilaa anna alxajja qataan kaana fi qalbihi sëñ bi mm-hmm. aj mos sa génn ci xolam am nañ ay bayit yu bare bare bare bare waaw yoo xam ne daf loolu la ci fedd mm-hmm. di bëgg a di di wane ne mm-hmm. ziyaare baytullah moo ko gënal lépp lu mën arju bi rahmatihi almuhdaati sayidina waaw zawri madinatahu daana rayaxiini bari na sax bari na lool yow ko ni zan bi an ziyaara ma ngoo ko waaw dafa gën jàppe ko bàkkaar wallaay wallaay bàkkaaru <laughs> mutasawif nag beneen bàkkaar la kon àggoon na sax ba wax ko ba ba wax Cheikh Ibrahima Faty lenn sabab yi nga xam ne moo ko teewoon a ah. mm-hmm. xam koo xam ne dañ ko defoon dañ ko eh, dañ koo téye woon mm-hmm. bëgguñu fii sax mënu si mënu si woon des kooku nu muy aje <laughs> ko xam ne ajjuma wàccoon mm-hmm. xam ne tey tey rek buñ ko bàyyi woon mu ñibbi si Touba ko mënut a aj kon amoon na ci yéene lool bi mu fi jugee it ak njabootam taxaw nañ ci taxaw bu wér euh, ñun ñëpp xam nañ ne it sëñ Tuubaa li mu fi nekk lépp ci loxo loxoy noonu yi la nekkoon. Mm-hmm. koo xam ne nag mënu laa may nga jóge Jurbel dem Touba ngir ziyaare ji ko sa dëkk ba nga gën a sopp mm-hmm. gannaaw Makka ak Madina mm-hmm. kooku mënu laa may ngay dem di ziyaare ji euh, Makka wala Madina moo tax biñ demee ba ak njabootam ak i taalibeem mën koo mën a aaj euh, ñu bare bari ci ñoom aaj nañ amal ko am am am am am euh, jox ko yéene ji. Mhm. def nañ ko ci mhm. palaasam am. Mhm. ko ñi ko def officiellement. ci tarixa bi mooy. Euh, délégation bu mag boobu nga xam ne maam Cheikh Anta ci la bokkoon suñ Mbacké Bousso ci la bokkoon suñ Mamadou Fadil ci la bokkoon atum 1346 dëppoog 1928 ajoon nañ aj goo xam ne dañ ci dañ cee dañ cee yéene woon wàllu googu te xam nga ne ñii ñii niñ muritee niñ nekk ay daanukat mm-hmm. suñ toll ci sëñ bi mm-hmm. bu leen sëñ bi digaloon mm-hmm. wala mu juñu leen luy wane ne maanaam dem Jurbel ak dem Touba ñoo yem duñ ci duñ ci daj coono bu koy dem màgg kon moom it loolu tuuma la rek kon daal yooyu ay tuuma yu bëree bëri la yoo xam ne loolu benn la ci benn la ci benn la ci benn la ci ci wàll waaw macha allah jërëjëf euh, sëñ Abdoul Khadir Bousso macha allah ci leeral ko am solo googu day mel ni euh, li ñu soxla woon ci téere bi xam nañ ko mooy li ko composé ci ay borom xam-xam waaye xam nañu itam ñi nga xam ne noonu la ñu téere bi waaye itam xam nañu borom xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo def njuumte yi nga xam ne ñoom la ñu tànn ñi nga xam ne ñoo def ay njuumte ci sëriñ bi waaye gaaral seen i njuumte ba noppi wëlbatiku tontu ko tont yoo xam ne yu tege ci ay teggin la waaye andi ñu itam ay misaal ci njuumte yi nga xam ne andi nañ ko ci sëriñ bi andi itam tontu yi nga xam ne tontu nañ ko ci xam naa ko dañ lay jox rek nga indi ñu kàddu gu mujj gi bu ko defee ñu daal yëkkati jotaay bi incha allah ok jërëjëf sëriñ Cheikh naa xam naa loolu ay mm. exemple la ci rek mm. ci njuumte yooyu comme ni nga ko waxee mm. lenn lu ci ne wala boog jël nañ ñaari bunt yoo xam ne euh, seetlu nañ ci ay njuumte yoo xam ne am na ci gaaral nañ ko wax nañ it ni ko tontoo woon waaye téere bi yëpp booy xool ba mu jeex am na sax njuumte yoo xam ne moo gën a moo gën a rëy tuuma yoo xam ne moo gën a moo moo gën a euh, waroo ki ay teggin <laughs> euh, gën a juunu mi ngi ci waaye xëy na waxtu yi moo ñu moo ñu may ñu mën koo mm-hmm. ñu mën cee développé bu baax a baax mm-hmm. en tout cas li ma mën a wax mooy téere bu am solo la. moo xam ne gëstukat boo ci ne. war ngaa fexe ba am ko. war nga koo liir liirati ko liirati ko. comparé kook la nga xamoon. da gis ne ñi ko doon euh, bind. jéem nañ ci am ak mawduiya. jéem nañ ci am amaana ilmiya daanaka. la euh, fàddu woon ca. Euh, wàll ñi nga xam ne ñoo doon bind. di teg ay tuuma ak njuumte. yu ci bëree bëree bëri ñu doon ñu composé borom xam-xam ñu composé ba bind téere bi jéem nañ ko caa dabu jéem nañoo leeral lu bëree bëri yoo xam ne jàppewoon nañ ko iskaliya bu njëkk te ko defoon iskaliya rek mooy ñi ko fi tegoon dañ ko fay tegoon ngir ay yéene yoo xam ne nañ ko dañ koy dañ koy jàppe yéene ju rafetut waaw wala boog dañ koy jàppe njort lu ñaaw hmm. xam nga nit wala boog mbir buy dox am ci yéene ju rafetut rek wala nga am ci njort lu ñaaw rek hmm. mooy indi ay tuuma di ca am hmm. wala boog nga koy seetaan Euh, luñ luñ luñ ca teg nga jël rek yow consommé. Mm-hmm. doo doo doo vérifier. Mm-hmm. doo wérlu. Mm-hmm. doo dellu ci ñu ko xam. booy bindaat di répété. te léeg nga xam ne sax li ngay répété wala li ngay bind. wérut dëppoowut ak la borom wax. Mm-hmm. dëppoowut ak ñi ko njëkkoon dund nañ ko dundee. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye dëpp dëppoowut ak ñi nga jaxasoo sax. te te te te nga jàpp ne ci kuréel googu lañ bokk. dëppoowut ak seen i jëfin. dëppoowut ak seen i waxin. ndax yoonu murid ba mu sosoo ba tey am na ay borom xam-xam. am na ay nit yàlla. am na ay jàmbaar yoo xam ne def nañ ci lislaam lu ne mhm. jàpp naa ne euh, gis yenn comportement yi rek mhm. warut a tax nga suul jëf yooya mhm. suul melokaan yooya suul réalisation yu mag yooya ngir ne dangaa bëgg liggéey ci benn euh, ba mm, boo xam ne sa diggante la ak mm, ay nit yu simple yu néew waaw mbir mu ci ne da koy jàngat ca cosaan xool la ko lal mm-hmm. xool ñu ci jëf mm-hmm. loolu moo ëpp solo ngay xool rek mm-hmm. shawaaz yi nga xam ne ñoo cee am wala boog ndax ashad laa yuqaasu alayhi di santaat bu baax a baax di gërëm di ñaan suñu borom defal ñu ak dégg ak topp suñu borom defal ñu màggal gu neex euh, ñu daje ci ngërëmul sëriñ bi suñu yëngu ak suñu dal hmm, yëpp suñu borom barkeel ko ca barkeb sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum asalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ Abdul Xaadir ci eh, waxtaan wu am solo ak téere bi nga xam ne mu ngi ko doon gaaral ci suñu kanam ñoo xam ni jublu gi nag du dara lu dul soñ ñi nga xam ñooy gëstukat yi ngir ñu am nuqtatul intilaq ngir mën a nag dugg ci gëstu dëgg-dëgg yoonu murit ndax lii benn misaal la ci ci téere bi nga xam ne wala benn xaaj la ci subuhaat bi ñaareel bi mi ngi ñëw te la ci ne yeneen jumte yoo xam ne mi koy ñëw lépp nag li muy indi rek mooy ñu fexe ba di gëstu yoon bi képp koo xam ne ba nga gëstu yoon murit am nga foo mën a jaar boor ko xam mm-hmm. incha allah sëñ Sam Bousso Abdourahmane mi ngi ñëw léegi ànd ak sëñ Fallou Sall ci beneen téere boo xam ne mooy Seex Ahmadu Bamba Abdullahi wa Xadimu Rasulihi muy xës muy téere boo xam ne dafa euh, tënk mboolem dundug sëriñ bi la tàmbalee ca ba mu fee Mbàkke Bawol ba ba mu ko ci géej gi ba mu demee ci géej gi ba nit ñibbisee Sénégal ba ni mu ñibbisee Touba loolu lépp dañ ko cee tënk incha allah suñu saam di ñëw léegi ci kanam Seydou Khadre sant nañ la bu baax di sant ko yëpp di leen gërëm di wax ne di fàttaliwaat ne liggéey bii mi ngi bokk ci exposition bi nga xam ne daayira Rawdu Rayaahiin ak Muxaddamatul Xidma ak association des écrivains de la Mouridiyya ñoom ñoo ko ànd mu nekk ci biir biir jumaa ji mën nañ koo siyaare si nemmee ko si béréb boobu incha allah ku fa ñëw mën nga jël ay référence ci nga soxla foofu nga dem ci makk nga jënd ko fa incha allah ngir mën a wéyal sa gëstu ci yoon wi kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.